ngeen di commenter di emee loole tamit dina yokk dooley page bi ñu door xibaar yi dooree ko ci Sadio maane mi nga xamante ni keroog bi Sénégal di jàkkaarloo ak ñii di waa cap dafa mbëkkante woon ak góolu cap ba ba génn ca match boobee loolee nag juróon na njàqare ak tiis ci sénégalais yëpp moom mii di Sadio Mané nag dina mën a football suba bu Sénégal di jàkkaarloo ak ñii di waa Guinée équatoriale loole nag kaaf moo ko jox ndigal mu football mbëkkante yu mel noonee bu amee ci match kaaf danaan di ngeen am lu mu gàtt-gàtt juróom benni fan doo football waaye Sadio ba ñu saytoo wér gi yaramam xam nañu ne mën naa kon suba bu Sénégal di jàkkaarloo ak Guinée équatoriale match boobe suba 19h la Sadio Mané mii mën naa bokk ca match boobee loole nag xibaar bu neex la ci ñun sénégalais yëpp ñu wëyal xibaar yi jël doomu Sénégal bi ak France di Boubacar kamara bu ñu sukkandikoo ci OK Diario la mu xamle moo di Boubacar kamara ñii di waa Atlético de Madrid ña ngay ñëw ngir jënd ko waa Atlético nee nañu noppi nañu ngir def ca 5 millions d'euros gone gi nag bu saison bi jeexee la contrat di jeex tàkk waa Atlético nag dañoo bëgg a profito ñii di waa Marseille man ca am as tuut waaye loolee du yomb ndax gone gii di Boubacar Kamara waa Manchester United bëgg nañu ko nee ñu ko bu sa saison bi jeexee bëgg nañu nga ñëw fii ci mën sa Manchester United fekk contrat jeex tàkk du ñu def benn dërëm waaye Atlético lam ko dig nag nee na ko boo ñëwee fii ci Atlético dinaa la defal salaire bu baax. ñu jugee ci Boubacar Kamara jël doomu Argentine bi di Lo Celso nekk fële ca Tottenham moom mi kat amul temps de soppi xar kanam bu ñu sukkandikoo ci l'équipe nag la mu xamle moo di ñii di waa Tottenham ña ngay waxtaan ak waa Lyon ngir gone gi jógee ca Tottenham ñëw ca Lyon ñaari club yi sax juboo nañu muy Tottenham ak Lyon ci fi mu desee kay moo di gone gii di Lo moom moo nangoogul ba léegi waaye ñaari club yi juboo nañu gone gi nag amul temps de jeu fu muy footballer la bëgg moo tax ma ngay wut fu mu dem moom mii di Lo Celso ñu jugee ci Lo Celso jël doomu pays bi di Donny van de Beek nekk fële ca Manchester United bu ñu sukkandikoo ko ci Alexis Truki la mu xamle moo di gone gi kat dana dem fële ca Crystal Palace bu seexu ko Kouyaté loole nag ñii di waa Crystal Palace dañ koo àbb képp bu saison bi jeexee day delluwaat ca Manchester ci fàttali gone gi fu muy dem di football la bëgg am temps de jeu bu doy ngir bañ a wuute mondial bay amee ca Qatar moom miikat ak waa pays soxla nañ ko lool ndax moom ak kii di Frenkie de Jong ca millier ba waa Pays-Bas du ñu wax dara te gone gi jamono ji footballu te Manchester loolee moo mu bëgg a dem fële ca Crystal Palace bu Cheikhou Kouyaté yeggalee fa li des ci saison bi loole nag jubo am na daanaka ci ñaari club yi. ñu jugee ci Donny van de Beek jël doomu Équateur bi di Felipe Caicedo moom mi kat ñii di waa Genoa abal nañu ko waa Inter loole nag abal képp la bu saison bi jeexee day jugee ca Inter delluwaat ca Genoa moom mi kat ci fàttali am na 33 ans moom nag ab attaquant bu am doole la. moom mii di Filipe Caicedo kon jamono jii ma nga ca Inter. ñu jeexalee xibaar yi ci doomu Angleterre bii di Phil Jones nekk défenseur fële ca Manchester United bu ñu sukkandikoo ci l'équipe waa Bordeaux woo nañu waa mën sa Manchester United ngir jënd ko. moom mii nag amul temps de jeu ca Manchester United li ko waral moo di Raphaël Varane moo fa nekk ak kii di ma Maguire te loolee tax na moom footballatul fu muy footballee nag la bëgg a dem loolee tax na ñii di waa Bordeaux woo nañu waa Manchester United ngir jënd ko moom mii di Phil Jones waxtaan baa ngay wéy nag ci ñaari club yi di Bordeaux ak Manchester United kon gaañ yëf yi foofu la buuree ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba beneen vidéo incha allah